déglu mm-hmm. du ñu ay constitutionnaliste mm-hmm. maanaam man économie laa def jànguñu mm-hmm. droit <laughs> mais dañoo déglu ay kàngam yu seen xel màcc ci mbir mi ku mel ne le professeur Zouanke 2016 avant sax ñuy wax waxu possibilité de deuxième quinquennat et cetera moom moo taxaw ne mm. référendum bi liñ ci dëxëñ bu jàllee xam ngeen xam leen ne président de la République en 2024 dara du ko tënk pour mu représenter wu waat pour un deuxième quinquennat bu dee droit bu dee suñu texte fond suñu texte ak suñu charte fondamentale la ñuy topp muy suñu constitution hmm. président am na droit présenter wu waat ci loolu lañ tënku ba pare am ñeneen ñu ko wax ku mel ne Babacar Gueye le grand constitutionnaliste mu ne président am na droit amaat beneen mandat en 2024 kon yéen fi ngeen toll en plus de ça ni ko may ma tuuti en plus de ça damay kii opposant yi nga xamante ne ñoom la ñuy jàmbaarloo xam nga ñoom ñoom dañuy politique mauvaise fois lañ ci àndal mais ñoom ñoo gën a tey ñoo gën a xam ne président bu présenté woo day jàll parce que am na droit bi xam ngeen xam ngeen ki ma dul tudd xam ngeen coowal xam ngeen coowal loolu dinañ ci ki nga dul tudd dinañ ci ñëw ki ma dul tudd dama bëgg xam ngeen coowal taxaw coowal troisième mandat li mu indi ci jéeya ci ci ci àdduna bi xam ngeen ko quand même intégré ngeen loolu euh, ban troisième mandat ci deuxième quinquennat moo fi am troisième mandat amu fi kat <laughs> ñaareelu mandat bu juróomi at la ñu ah, wax ah. waxuñu fi trois ok Euh, ki nga bàyyi ngay def ki nga ne léegi bëggoo ko tudd dinaa ko tudd muy Ousmane Sonko démb def na benn sortie boo xam ne euh, xam nga moom saa saa bu defee sortie mm. Sonko nag day occuper espace bi yëpp ah espace médiatique bi espace public bi moom la ñoo waxtaane Ousmane Sonko moomee nag euh, de non seulement demul seen dialogue troisième mandat boobee ngay wax du fi amee xaw ma deuxième quinquennat nu ngeen ko tuddee euh, te nee na aussi euh, woo na jeunesse sénégalaise maanaam nañ jóg taxaw euh, maanaam def résistance yaa ngi gis mu ngi gën a taral xeex bi cooki bi nan nga jàngatee sortie Ousmane Sonko démb. waa avant may jàngat sortie bi dama lay wax ne Ousmane moo fi toog ne. Hmm. président Macky am na droit defaat beneen mandat. yàggul dara vidéo yaa ngi fii. ku wax loolu. Ousmane Sonko ci boppam. yàggul dara vidéo yaa ngi fi moom mooy weddiwaat boppam ni ne président amatul droit bi. mais loolu loolu lan la ci moral wax. moom mu ne président am na. am na droit defaat beneen mandat en deux mille vingt quatre moo ko fi waxoon. d'accord Barthélemy feewlu ko ne ko. Hmm. effectivement président Macky Sall bu deux mille vingt quatre buy defaat beneen mandat. ah. xam ne man duma ma wàcc ci mbedd mi parce que amna droit bi. mais président moo ne woon ñaareelu bi la damay seulmal moom mo moo ko waxoon loolu bu leen yi foofu en attendant bu dee ku nek ay waxam. bu leen <laughs> fàtte ne. Barthélemy mo ne fi won en 2012. le président ablaye wad amoon na droit def benen mandat ñun politiciens yi bopam lay waxal ñun politiciens dafa am ni len yalla bindé motax tax ñuy ñuy ñuy ñuy 3e mandat bi mais xamone nañ né président wad amoon na droit bi. ku wax li kay wax deug yalla jeexal na wax ji. Mm. leneen li mo la bëgg wax. moy mm. gis nga waxi Ousmane Sonko mom mm. jarut doori doom. euh Ousmane Sonko lum fi waxon yeb day weddi wat bopam ci wax yeb nak lepp lum fi tiiñaloon nit ki génnewu ci rapport Ousmane da wax lu deug bañ ne ko bañ alaman ko 200 millions. te ñoo ngi demaat ci projet ba de mën na ëpp deux cent millions. deux cent millions du ko fay. deux du ko fay. ku wax ba wax lu dul dëgg. deux cent millions bañ ne la fayal. deux cent millions nee na dërëm loolu kooku waratul la wax ci Sénégal ba nit gëm ko. déggoo ma ma ne nee na moom loolu du ci fay fifteen. lu tax du ci fay fifteen. parce que loolu la décidé nee na léegi kii bi justice bi moom voilà moom day def loolu. ñu naan c'est-à-dire c'est-à-dire Ousmane Sonko mooy nit koo xamante ne dafa ñëw pour yàq Sénégal. Ah yàqal sénégalais ñun jàmm lañu xam salaam lañ xam président ab président président Macky Sall bi muy wut réew mi saagawul kenn xasul kenn sosalul kenn dafa dem ci Sénégal yi laaj leen seen baat mu ànd ak yar gu mot sëkk waaye ñim jàkkaarloo mot sëkk boobu ñim jàkkaarloo woon dañ ko bàyyi woon mu def loolu ñim jàkkaarloo loon dañ ko bàyyi woon mu def loolu ni mu ko war a xam ngeen metre maître Abdoulaye Abdoulaye Wade bu amoon lu muy reproché président Macky Sall 15 euh, indil na ko ay jafe-jafe mais président Macky Sall li saagul kenn xasul kenn xam nga ki ngeen wax sànq muy Ousmane Sonko lépp lu ko dal hmm. moo ko yóbbee boppam làmmiñam bi la ak tànkam bi hmm. ñëpp xam nañ ko fi mu demoon foofu mu tànkam moo ko fa yóbbu yow nan nga mën a nekk nga ngay yóotu am réew toll ne réew mu toll ne senegal ah, mag ñu baax ñi nefi ah, ah? ah. kilifa diine yi et cetera ngay wutum réew pour jiite ñooñu ngay dem di fréquenter ces lieux sordide la loolu yàpp sénégalais yi la ak yàpp suñu suñu maam yooyu la sax en réalité. ok léegi. moom yow yow jeune nga yaa jiite jeune euh, APR yi léegi moom euh, woo na jeunesse sénégalaise appel à la résistance. d'ailleurs euh, date yi war a ñëw. Mm-hmm. ci li ñu ko woo ci procès ak justice. le le waaw laaj na jeunesse bi ñu rallier Dakar maanaam Dakar nar na tàngati. ah nan nga gisee appel yoyé yow mi en tant que jeune. Euh, non mais ko yag na fi woté mortal combat yag na fi woté insurrection yag na fi euh, euh, nañu wacc ci mbedd mi yàq taal. Mm. et cetera mais kooku est-ce que bëgg na Sénégal en réalité. Mm. té xam nga fan la koy juger. Mm. buñ ne la yow dafa am no gisee né réew mi non lañ ko wara doxalé doxalé wuñ ko noonu. ki yor réew mi ki yalla dogal tay mu nekk président de la république ne la kaay ñu waxtaan kaay leen ñu toog nga ne waxtaanoo kooku koy wax dëgg yàlla <laughs> buggul lu jëmale réew mi kanam parce que Nico bu ñu amee différent mhm. bu ñu xuloowee mhm. ma woola ne kaay ñu waxtaan yaag say morom ñu toog pencoo nga ne waxtaanoo mais mais kan la ñu war a reprocher euh, musiba kan lañ ko war a reprocher ku ki bañ. d'accord hmm. mais Sonko réew mi Sénégal. te xale yi muy woo ci mbedd mi bëgg mu arrêté. Hmm. parce que am na ne dafa yanul ñaata ñaata ñaata bakkan rot ci yi muy de gauche à droite maintenant il est temps que ñu wax ko arrêté.

koo xamante ne nii maa kàddu yi gën a rafet la doon jëfandikoo madame Mimi Touré euh, présidente nangam nangam waaye bi nga ñëwee ci Ousmane Sonko damaa gis ne yéen violence bi ngeen leen di jiiñ dafa feeñ ci say wax maanaam diw du waxkatu dëgg Euh, fa mu dem tànk ma ko fa yóbbu fa mu dem nangam nangam nga xam ne débat bi day xaw a déplacé wu tuuti ci débat wu idée waaye day demaat ci yeneen débat yoo xamante ne nii débat wu euh, maanaam violence lay doon bu ànd ak benn xeetu benn xeetu benn xeetu songu ma ciy gise ne li ñuy wax ne euh, est-ce que du Ousmane moo leen tere nelaw c'est-à-dire maanaam dialogue beeg woote yeeg Euh, maanaam seen lépp li leen tax a kii day mel ne moom taxawaayam ci boppam moo leen moo leen teree nelaw loolu laay seetlu ci yéen beneen bi ci des itam yaa ngi wax léegi ci wàllu kàddu xam nga bu ma déggu say wax damay gis ne kii moom ku fonk nit ku am kàddu la ndax moo tax muy bëgg nit di wax kàddoom kàddu gi mu waxoon daaw ren di ko dëggal waaye loolu bu ma xoolee tey ci doxalinu troisième xaw ma deuxième quinquennat bii euh, ak li ngeen ci wax lépp buñ delloo ci kàddu yi nga xamante ne moom la njiitul APR waxoon kàddu yooyu yëpp day wuute ak yéen seen bi ngeen am di ko doxal léegi euh, manam njaxas mom may seetlu say wax nokoy koy nu mu tuddatee. dëgg koy sëñ Mbacke Sylla. <laughs> non dama laj donc jërëjëf seigne Mbacke question yi amna solo. waaw bi may njëkkee moy bi nga mujjé mm. mm. euh moy par rapport ak euh, moral. Mm-hmm. bi gars yi di di ñu opposé souvent. waaw dama bëgg wax moral bobu mm. buñ ci démé nous sommes à l'aise d'en mm-hmm. discuter xam nga lutax euh bu dé moral rek en face de nous. en face di président Macky Sall. Mhm. ñan ñoo fa nekk. encore une fois Barthélémy Diaz tëjoon nañ ko fi parce que dafa rayoon Ndiaga Diouf. dañ ko tuumaaloon. tuumaal wala. ah waaw jugé nañ ko du. ay <laughs> ayca mais mais mais kooku dañ ko tuumaaloon. Mhm. nangul naa la ko. Mhm. ne dafa rey nit. waaw ah. rey nu mu foore bakkan nu mu foore. ñu jóge foofu keneen ka di Ousmane. Ousmane lan lañ ko tuumaal dafa violé. du dëgg ah. loolu lañ ko tuumal waaw moral ba moral bi la mhm. ne. keneen ka ku ku tudd Khalifa Sall. Mhm. président Khalifa Sall. bu daanoo rek nga bëgg a maanaam du yéen dong daal bul bul yàkkamti xaaral. <laughs> waaw non président président Khalifa Sall. président Khalifa Sall. tëjoon nañ ko fi de. lan lañ ko tëjee woon. luubal. du dëgg. Mhm. loolu la tribunal bi wax. du dëgg. Euh, Karim Wade tëjoon nañ ko fi lan lañ ko tëjee woon enrichissement illicite. Mhm. donc ñi nekk en face de nous bu dee moral la ñuy wax. Mhm. wax dëgg yàlla yéen ñëpp a yem yéen ñëpp yem. du ñu seen morom. yamuñu du ñu seen morom. ah d' accord yamuñu. accord Macky si la nee seen morom yamuñu. leneen li ma la bëgg a wax mooy. Uh-huh. gis nga dafa am loo xam mooy suñu arbitre. Mm. muy la constitution. d' accord si la. président mën na fi wax dara. parce que boy fatali en 2000 euh, en 2016 président de a un mandat jëlé ko 7 indi 5 ans en tant que président de la république mais constitutionnel def né ko mëno un mandat d'accord mëno ko mandat en tant que président donc c'est au même titre mm-hmm. que bu par exemple né man defaatuma mm. beneen mandat. Mm. waxoon na ko effectivement mais constitution bu ko ko permettre. Mm. ñu xam ne liggéey na. ñu yéene ko ko. ñu liggéey liggéey bi nga xamante ne war na amaat beneen mandat. Euh, mais pourquoi pas. pourquoi pas est-ce qu'il n'a pas renoncé ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. d'accord euh, mais mais mais souvent. il faut ñuy xool tamit en face de nous. bu leen fàtte ne newoon nañ ne président am na droit def beneen mandat. d'accord donc léegi seen wax jooju noonu léegi war nañ ko. Mm-hmm. ana moral bi léegi jërëjëf Moussa Sow léegi des na beneen question. waaw ayca vite fait rapide. lu dëgg uh-huh. Ousmane Sonko boo gisee ñu koy tontoo nii. Hmm. moom xam nga sànq wax naa ne mag bu bu buñ ko respecté ci mooma mais Ousmane Sonko it boo gisee ñu koy répondre noonu li muy wax ñëpp la sénégalais yëpp laay wax hmm. heure bu jógee heure bu kàddoom jógee moo ngi yàq lu mel ne musiba président de la république qui est une institution. di yàq lu mel ne musiba toutes les institutions de la république. d'accord magistrat yaa ngi fii. Mhm. ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. donc Ousmane Sonko boo gisee ñuy wax ak moom ni moom moo ko sooke. moo ko njëkkee. te loolu dafa war a arrêté. bu fekkente ne daf bëgg a jiiteem réew. Mhm. jiiteem réew di dem ci ay ay ay ay suite beauté jiiteem réew di di wax ay. musiba loolu wax nga ko jiiteem réew di di di. Euh, merci merci <laughs> Moussa Sow. Euh, Moussa Moussa jërëjëf motul sax maire. Moussa jërëjëf. waa Ziguinchor ñoo ngi waaj a di.